waaw maa ngi ci communauté bu nga xam ne ñu solidaire lañu ñu déggoo seen biir communauté bu nga xam ne ñu bëgg jàppale seen bopp la. pour travailler ensemble en synergie. ginnaaw kàddu dal jàmm jóge ci consul général bu nekk fii ci Abidjan ñu daal di tàmbali fësal li ñu dëxëñ ci projet bi ñu jagleel lu toll ci cent mille ay ménages sociaux lii lay war a yombal fileek lu jege. lu xaw a diggu doome ak lu sori ay doomu Sénégal war a mun a am kër yu ñu moomal seen bopp ci njëg lu yomb. léegi il faut ñu teg benn code de la construction boo xamee ne dina accompagner la vision et l'ambition du Sénégal ci code boobu noonu daanaka semaine il y a dix jours lañ ko jàllale assemblée pas moins de trente innovations def nañ ko ci. mu nekk ngëneel li lay waral doomu Sénégal yi nekk fii ci Côte d'Ivoire fu nekk la ñu jógee ñëw. déglu yëre kilifa waaye itam jox leen seeni gis-gis li waral ba ministère bi ak ay banqaasam war a jël ay joyanti joyanti dugal ko ci projet bi di cent mille logements tënkale ko ak ñoom la ñuy dund. ñi fi nekk ñëpp ay jàmbaar ñoom ñëpp programme logements bi yitteel nañu. liñ fi ràññee comme difficulté mooy premier problème mooy accès à la plateforme. l'information la communication. danañ ko régler en nommant un, un bureau du logement un chef de bureau du logement ici à de Côte d'Ivoire à Abidjan. bokk na ci yile saafara ab suivi évaluation ci dossier yile doomu Sénégal nekk bitim réew ngir yaakaar bi ñu ci am du yàqeeku. jox nañu instruction fonds pour l'habitat social ak euh, Amadou Thiam dossier yi nga xam ne que cela concerne ñu jël leen en charge pour que ñu waxtaan ak banque bi nga xam ne moo. institut de microfinance bi mu respecter les les clauses du projet su ko mënul respecter on le retire et on essaye de vous mettre dans les conditions que le président a annoncé publiquement à la nation et à la diaspora. ginnaaw benn ayu bés mu amal ab tournée tàmbali woon ko ñaar fukki fan ak ñett ci weer wu ñu nekk di weeru décembre ca Brazzaville jaar Pointe-Noire Libreville Ouagadougou tey fii ci Abidjan di pays réewu Côte d'Ivoire Abdoulaye Seydou Sow. ñaan na doomu Sénégal yi fi nekk ñu àndandoo xàccandoo dóorandoo Sénégal nekk champion d'Afrique war a tàmbalewaat beneen joŋante ñu koy amal fii ci Côte d'Ivoire ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier jàpp fukki fan benn ci weeru février.